bi lakk bi amee waa ji taxawee sapeur bële tuuti mu xeex Thank you. side. Thank you. jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante yéen ñuy topp ci Univers Info TV mbégte lay doon ci ñu ñu leen di toppal li nga xamante ni moo fi information actualité comme ni ngeen ko xamee ñi ki sànq la ñu xamal benn euh, effondrement boo xamante am na fii nga xamante ni moom mooy ci ci diwaanu Wakam waaw bi bi bi bi 13 heures di toftal farmeeri simili la ñu ko mhm. xamal def nañu nag suñuy effort ba yegsi sur le lieu mhm. def nañ suñuy effort ba yegsi fi nga xamante ne foofu la xewee mhm. mais nag yi nga xamante ne moom moo fi xew mooy gis nañu ni kër gi daanu na comme image yi nga xamante ni njëkk nañ leen ko dugal ci biñ ñu ko envoyé mais présentement fi nga xamante ne fi la ñu taxaw bu ñu xoolee ñu ngi fi nemmee ko ñu dul euh, sapeurs yeeg gendarme yeeg policiers yi mais dugguguñu exactement exactement biir kër gi nga xamante ni moom moo daanu mhm. xamaguñu nag exactement tamit ba xam am na ñu fa nekkoon mhm. mais ak lu ci mënti am rek fi nga xamante ni moom mooy ci kër gi ndax bu ngeen xoolee koñ bi nga xamante ni moom mooy daanu mhm. mais nag amaguñu possibilité dugg fa ndax ki nga xamante ni moom mooy euh, gendarme bi ñëw léegi di waxtaan ak ñun dëgg la li mu wax nag mën nañu ko nangu ndax tamit xamaguñu exactement ba xam am na ay ñoo xamante des nañu ci mais ak lu ci mënti am nga xamante ne ou bien euh, gendarmerie mm-hmm. waaw doo fi jege ndax boo xoolee voilà boo xoolee ñoom rek ñooy jege fi nga xamante ne mooy alentour kër gi mais daal lu ci mënti am ñun ñu ngi taxaw mm-hmm. ah, faire face ak fi nga xamante moom la jëf ji amee mm-hmm. waaye ak li nga xamante moom lañ kooku daal mooy mooy lu tiis la. Mhm. parce que xëy na xamaguñu exactement ba am ñu ci des ou amul ñu ci des. Mhm. waaye daal lu tiis la loo xamante ni mhm. euh, ñu ngi koy di bëgg nemmeeku dont sax bi ñu ko xawoon a gëj a xaw na yàgg tuuti ndax bu ñu juumulee. bi nga xamante ni moom moo mujj ci yu demee nii. mu ngi amee woon foofu ca xaar yàlla. côté rond point Liberté 6. bi ñu fa jugee tamit déggaatoon nañ benn boo xamante ni amoon na foofu ca. ca ca Médina tey yàlla mi ngi ko dogalee fi nga xamante ni moom mooy ci ci Wakam mu nekk doy na waar xamaguñu nag ba xam état kër gi. Mhm. ni mu meloon xamuñu ba xam euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon liggéey kër gi. Mhm. liggéey nañ ko ci anam gi nga xamante ni moom mooy li war waaye ak lu ci mënti am daal gis nga ba tey sapeurs ñu ngi ñëw. Mhm. ba tey sapeur yi ñu ngi ñëw parce que tamit c' très euh, normal bi mooy ñëw boobu léegi ah, sànq gis nañu renfort bu am solo tamit ci gendarmerie mm-hmm. donte sax ñoom fii seen camp la seen base la mm-hmm. ah, jege nañu fii macha allah mm-hmm. gis ñu ci biir di ni ñu ah, na ñoo xamante ni des nañu nit dañuy taxaw rek coaché wu faire face ak li nga xamante ni moom mooy kër gi ba di xaar loo xamante ni mën nañu ko xamal pour ñu mhm. xamale ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy internet yi. Mhm. Ah, fii nga xamante ne moom mooy ci Wakaam. Mhm. Euh, actuellement nii euh, mbokki euh, Delta 221 ak mbokki univers ñu ngi fii la nga xamante ne nii moo di ci Wakaam comme ni leen ko leeralee léegi léegi. ñu ngi euh, ak ci bopp koñ bi la nga xamante ne ni tey euh, moom la jéye bi am mhm. ñu ñaan yàlla euh, kenn rek ak ci waa kër gi mhm. bañ cee ñàkk li nga xamante ne ni moom moo di bakkanam mhm. parce que tamit lii état bi bokk na ci li mu war a jóg maanaam que ne di jóg di caytu ay kër yi nga xamante ne ni tey donte ndogal la di caytu ay kër yi nga xamante ne ni tey moom moo nekk fii nga xamante ne ni moom moo di ci réew mi te nekk ñu en bon état waaw parce que parce que dëgg la bu ñu xoolee yii yi yii yi donte sax dinay xaw di ñëw des fois waaye ak lu ci ci am rek mën nañ ni plus jamais ça surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo a tabax seen kër mais mhm. aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy jël engagement wu tabax kër yi waaw war nañuy bàyyi xel bu baax ci nga xamante ni moom mooy genre yu demee nii mhm. parce que tey exemple yow nga am sa sa sa mhm. am sa kër engagé ne ma pour ma tabaxal la sa kër nga fay ma loo xamante ni mat na war a war mat na loo xamante ni mën naa ci defar kër gi ni nga ko bëggee man ma defee ko noo xamante ni du doon ni mu la gënalee waaw yu ci ëpp nii lay demee mais nag xamaguñu exactement que ni noonu la ou bien mais ak lu ci ñu ngi xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité administrative yi ba policier yi nga xamante ñoom it ñu ngi fi mhm. ah, parce que ñoom ñëpp am nañ ci part de responsabilité boo xamante ni dinañu ko mën a xamal mhm. parce que tamit information la dañ leen di laaj ñoom tey nan la ñu gisee lii mhm. tey nan la ñu jàngatee lii lu sabab lii loolu leen Info parce que tamit nii la ñun ñu xamal ci information dañuy dem sur le lieu dañuy dem sur le terrain taataanal leen ko jëlal leen ko ci ay kàddu yu leer mais aussi ci ay image yu rafet kaddu yi aussi mi ngi mi ngi mi ngi jaar yoon mhm. kon si si si c'est si tel n'est pas le tamit ñu ngi koy tuut mhm. te xam ni wàllum technique moo demee noonu te ki nga xamante moom la ñu nekk moo xaw a métti mais daal ñu ngi fiy taxaw ñun di xaar ñi nga mhm. xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir ci mel ni ñu nemeeku moom mooy waaw nemeeku nanu gis nga fii lépp la ñu barricadé ak seen i fii parce que pour nga am fi accès moom il faut nga dëkk fi wala boog nga nekk homme de boo xamante ni la mën a bàyyi mën a dugg si xool li nga mhm. xamante ni moom moo fi xew mhm. mais daal mu nekk lu doy waar loo xamante ni daal yàlla na ci yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj sapeur yi ñooy génn noonu sapeur yi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekkoon ci suuf mhm. mbi la nga xamante ni euh, moom moo di euh, ak ci boobale bâtiment nga xamante ni tey euh, moom moo daanu fii nga xamante ni ak moom moo di ci wakaam dafa mel ni nag ba actuellement nii fii ma taxaw ak yéen neuf minutes boobaak léegi man ak yow rek ñu ngi taxaw fii la nga xamante ni tey moom moo di ci wakaam dafa mel ni benn koor génnee guñ ko ak ci boobule kër ak ci boobule bâtiment. Mhm. parce que parce que sànq suñu conseiller bi nga xamante ni moom moo ñu xamal xibaar bi. Mhm. te nekk ci groupe bi mhm. am na ku dugal question bu am importance laajte ko ni ko. Euh, mbaa amul koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam. mu ne ñu euh, que loolu munu ci ñëw exactement ndax xamul ba xam amoon na ku fa ne. mais daal am na kenn koo xamante ni waxoon na ni. mu ngi ci woon mi ngi mi ngi woon ci biir kër gi xamul na ba xam dafa am na ou amul waaw dafay baax daal ñu gën a leerlu yooyu nga xamante ni ay ay question la interrogation yoo xamante ni genre yi bu amee ku nekk da koy laajte ndax du xam exactement ba xam am na ci loo xamante ni tiis la mbaa loo xamante ni euh, luy metti la mais daal ak lu ci mënti am na gis na nañu kër gi ñun en animage mais gis nañu ni li wàcc bëri na lool gis nañu xeer yi waaw mu nekk daal loo xamante ni yéeme na trop mais nag yàlla mun na lu nekk yàlla mun na lu nekk mooy gis nga tey noonu nga xamante ni ni kër gi daanu noy mhm. mbaa xam nga ni yàlla mën na def pexe goo xamante ni kenn du fa kenn du fa ñàkk bakkan ñëppay génn kër gi ba pare mu sow mhm. mhm. ni moom mooy li te daal li ñu moom day na waar lool lool lool fii nga xamante moom mooy ci Wakam jàkkaarloog ki nga xamante moom mooy gendarmerie bi euh, euh, ndeysaan euh, xoolal image nga xamante ni moom la leen wan instant euh, moom mooy image yi nga xamante ne ni tey euh, moom mooy xoolal euh, xoolal boobule kër bi nga xamante ne ni tey moom moo daanu fële ak Sokone yooyu la image moom lañ ci amagum mbokk yi ba bañi am yeneen image ñu nekk fekk sapeur pompier ak euh, la gendarmerie nationale mm-hmm. waaw ba ci ba ci ba ci police bi ah mais tamit gis nga dëkkandoo yi ñoom ñëpp génn nañu tamit taxaw seeni i buntu kër yi ñuy taxaw seen balcon yi pour mën a tamit secourer ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo daanu ci ci ci jëf ji nga xamante ni am na ni ki sànq mu nekk daal lu lu metti lu tiis loo xamante ni leen di masawaat encore une fois mais aussi di ñaanaat encore ñoom ñoo fekkee am na ku nekkoon ci kër gi rek yàlla ko yàlla mun na lu nekk mun na lu nekk nañu ñaan rek te am xel mu xel mu rafet xam ni yàlla mun na leen mais ba tay rek gis ngeen ko sapeur yi ñoom ñi ngi génn ah, di def ni nga xamante ni moom mooy seen va et bien xamaguñu nag exactement yan information lañu am ci biir mm-hmm. ndax bi ñu yegsee ñun sànq dañ ñu ne ñu ngi xaar gis nga gis autorité euh, gendarme yi ñooy génn noonu mhm. du ñàkk ñi nga xamante ñoom ñooy ànd ñi nga a ba jéem ci mhm. am information bu wér boo xamante ni dinañu ko xamle waa DELTA ak waa Univers Info TV mhm. mm, ñi am na ci anam gi nga xamante noonu la amee incha allah loolu ñuy jaayante ba di leen ko taata ñaanal ci nga xamante ne la amee kon nii daal moo amagul fii nga xamante ni moom mooy ci ci ci ci ci ci Wakaam ah tout juste fi nga xamante ni moom mooy gendarmerie bi ndax ñi miin tali bi xam nañ ni ah, fii sorewul ak fi nga xamante ni moom mooy tali bi ndax mhm. tout mën nañ ni même pas 40 mhm. mètres ah, mhm. tali beeg fi nga xamante ni moom mooy lu kër gi ah, pour ñi nga xamante ni xamaguñu exactement fi nga xamante ni moom mooy fan la ci Wakaam tout juste fi nga xamante ni moom mooy ci ci ci ci ci gendarmerie bi boo avancé nii tuuti ci ngay jot euh, monument de la Renaissance gis ngeen ko gars yi ñu ngi dugg ak génn ba tey. ndeysaan mbokk gars yaa ngi ngi dugg ak génn ba tey. ba léegi ci koñ bi ñu leen di wan euh, foofu la. Euh, jëf ji bi amee jëf ci maanaam que ni foofu la amee. Euh, la sapeur pompier koy gis noonu. nga xamante dugg ci suuf. dafa mel ni suma jumul capitaine bi moom mooy wax ak ñoom. di leen wax lan la ñuy def ak ñoom tamit lan la ñuy protéger woo mais dafa mel ni sapeur pompier bi dama gis ne dafa xaw a gaañu ak ci tànk voilà mais xam nga ñoom ñoom ñoom mis nañu yooyu. sauver opérir lañ woote ñoom loolu la uh-huh, ñu wax. maanaam kenn dund sauver nit ki wala ñu dee ñoom. jaay seen bakkan sapeurs-pompiers bi gis nga ko noonu. gis nga ko ah, dafa mel nii ne comme si moom tamit dafa gaañ moom sapeurs-pompiers bi. ñu koy masawu waat ñu baax a baax a baax a baax. yombul yombul. yombul mm-hmm. waaw tey rek di sauver ba mujjee maara day taali bu fekkoon lakk la ak lu muy lakk lakk bi lu muy extraordinaire ñoom dañuy sacrifié wu dugg mm-hmm. sacrifié wu dugg la def mu nekk loo xamante ni daal ñoom lu dul leen rek mm-hmm. ñun waruñu mm-hmm. lu dul jaajëfal leen rek ñun waruñu ko wax donc dañ leen di jaajëfalaat bu baax a baax di leen masaw bu baax tamit ci liggéey ñoom sapeurs-pompiers mais aussi mais aussi di di masaw tamit suñu mbokk tas xibaar yi ndax tamit ah, boo xoolee daj bi tàng na ah, ñu ci bëri tey ñu ngi woon seen seen rédaction yi mais actualité la ah tamit yabuñu suñu internet yi lépp lu xaw rek loo ni information la dañuy wàcc sur le terrain terrain mhm. dem jëlil koy génnal jëlilil leen mhm. ah, ko kon lii moo amagum fii nga xamante ni moom mooy ci wakaam moom moo ci wakaam sapeur pompier saa su nekk kon kon gis ngeen lii moo amagum fii nga xamante ni moom mooy ci wakaam kon dañ leen di bàyyi fii ak ay simili yu néew incha allah ñu dugalaatal leen ci biir kër gi nga xamante ni moom moo am jëf ji incha allah kon léegi léegi gars yi waaw ñu ngi leen di fay ñu leen di di leen di leen dalal fii ci Gisor amaana bu ñu sañoon duñ leen dalal ci anam yu mel nii donc nag euh, mu ngi noonu ñu ngi leen di dalal bu baax sax waaw bâtiment bi mooy bâtiment bi moo koy ne xanaa jaaxle jaaxle rek waa jaaxle ak euh, ak tiit bâtiment bi suñu waxalee dëgg. ñun ñi dëkk si koñ bi daanu bi bettuñu bu amee li ñuy bett mooy heure bi mu daanu ax ah, ni mu daanoo mais daanu bi bettuñu bu ñu wax lay dëgg rek te yàlla tax ñun bettuñu teg yàlla bettuñu ko waaw man nag personnellement mosuma ko déclaré mais am na ñu ko am na ñu dëkk si koñ bi ax ah, ñu dëkk ci alentour yi ñu ne déclaré woon nañ ko signalé woon nañ ko au niveau de la mairie ak autorité yi donc nag man moom personnellement déclaré wu ma ko woon mais moom wax dëgg yàlla bettuñu quoi ñun ñi fi dëkk daanu bi bettuñu. waaw si daanu la jëm bu fekkee parce que kër gi modification yi dafa yàgg quoi dafa yàgg. non de kër gi moom mujj si koñ bi. koñ bi waaw waaw si mujj si koñ bi kër gi moom suñu kër moo ko jiitu fuuf. kër ñoom kii moo ko jiitu kër yu mu feetal moo ko jiitu ainsi kër ñoo ko jiitu kër bi yàggul. waaw si suuf dañ ko si suuf xaw ma ndax dañ ko doon gas mais si suuf suuf daanaka amul amatul woon dara amul woon dara man ci maa ngi dëkkee ci biir man sama kër moom lay mooy buddu kër bi ñu bi buy bloqué wu nii man su ma doon nekk sama appartement damay damay seen ne yenn niveau yi dal bi dañ na amul dal dindi nañ ko si suuf tam amatul woon dara ay été lañ fa sampoon donc loolu moom mën naa ko non bi ma waxtaanee kii bi léegi bon nee na kenn defu fa nekk quoi nee na kenn desu fa sant yàlla mais mais moom li ma ciy wax mooy nañ xool anam mi ñuy tabaxee ah loolu nag da nga koy da koy laaj professionnel da nga koy laaj sapeur yi mais ki ma ci waxal léegi seet bi ma waxal léegi nii moom nee na nee na kenn newu moo moom sapeur bi moo doon wax sa moom wax loolu léegi chef bi nee na ma appartement appartement kenn newu fi ñetti nit lañ waxoon ñetti booy maçon ñoo fi doon fanaan ñetti waaw ñoo fi doon fanaan ah, euh, génn nañ ñoo ñu fi daan luwee génn nañ bu yàgg mais borom kër gi bu daan ñëw vacances fi lay dal waaw ah, ba yàggul sax doomam fi la doon dal donc waaw ah, waaw ñetti personne la ñu wax ñoo fi doon ñetti boy maçon moom ñoo fi doon fanaan dëkkuñu fi dañuy xëy dem liggéey dañu xëy dem liggéey ji. kër bi yàggul kër bi yàggul ñun ñun fii lañ fii la ñu juddoo fii lañu ñu màggee koñ bii di fii la ñu fii lañu ñu màggee bi yàggul bâtiment bi nee naa la kër yi kër yi ñoo ko jiit fii nii kër yi ñoo ko jiit fii nii man bi may football nawetaan fii lañ doon regroupé kër gi lañ doon regroupé donc loolu yàggul yàggul yàggul. daal waaw jërë ngeen jëf lancé bi may lancé mooy autorités yi ñu gën a farlu ci ni ñuy délivrer autorisation de construire yi ni ñuy agenre koñ mel nii ni ñuy def ba lotisser suñu koñ yi ni ñuy ni ñuy def ba bâtiment yu mel nii autorités yi bu ñu leen ko signalé ñu daw ñëw ut si solution parce que bëri na bëri na waxaama ah. bâtiment yu mel nii bëri na waxaam bu fi daanu tam du bett nit donc loolu rek laay lancé autorités yi ñu gën a ñu gën a farlu ci si si si si phénomène yu mel ni bañati bañati am kay yàlla moo def sutura alhamdulilah kenn ñàkku si bakkan kenn gaañu si donc sant yàlla mais daal mënoon na gën a ñaaw mais yàlla def na lii gën yàlla def na sutura autorités yi niñ gën a taxaw ci ci ci lii gaay si